أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko bu la nuy commencé rek ñi waxaat ñi tëdd ñu jóg ñi ñi ñi nelaw nañ yéeg ci kaw ñi tëdd ñu jóg toog ku bëgg a tëdd da ngay yéeg ci kaw fii foofu yaatu na ñu bàyyi espace bi ak ñi tafsir loolu toog ku ñëw di déglu si da ngay toog ku bëgg a tëdd fii ci kaw yaatu na dañ koo préparé pour ñuy tëdd ñu bëgg a tëdd nañ dem foofu tëdd ñu bàyyi espace bi ak ñi nga xam ne ñoom dañuy ñëw pour déglu si ñoo ngi ànd ak yéen sunu téere borom bi tabaraka wa taala tey ñuy jël ñeenti aaya aaya 138 139 140 141 ñeenti aaya yu nu sunu borom di jàngal ñeenti mbir yooyu ba ca jiitu mooy talab bani israil min muusa alayhi salaam an yajcala lahum ilahan yacbuduunahu tey danañ jàng gis waa banu israil ci seen dund bu bees bu ñu commencé lan lañ ko tàmbalee sunu borom subhanahu wa taala muccal na leen ci seen noon firawna ubbil leen géej gi ñu traversé firawna dugg yàlla labal ko mu waroon nekk ci ñoom kéemtaan waroon nekk ci ñoom dars leçon buñ dul fàtte ci seen dund waaye jéggi nañu géej gi ànd ak Moussa ay waxtu yu ndaw rek ñu laaj loo ñu laaj Moussa loo xam ne ab jullit du ko laaj mooy sàkku nañ ci Moussa ginnaaw ñoom ba ñu rombee ay nit yuy jaamu benn ëkk benn nu mu tuddati yëkk benn yëkk ñu ne Moussa defal nu benn yàlla comme ñii waay loolu muy tekki mooy dañoo réer ku réer rek mooy bokkaale yàlla ku réer moom ngay fekk muy takk ay gàllaaj wala muy takk ay ndombo wala muy takk ay weñ wala muy wala muy wala muy lu tax parce que dafa réer ku xam yàlla dëgg-dëgg doo ko dendale ak dara te da ngay xam ne dara loolu ngay takk wala loolu nga naan da nga koy jaamu mënul dara ñoom dëgg-dëgg fekkoon ne banu Israël ay nit lañ léegi léegi yàllaa ngi labal seen noonu boo xam ne des siècles sonal na leen di leen torturer def leen ay jaam ay esclave tey Moussa sauvé leen ci kattanal yàlla ñu traversé géej gi yàlla labal firawna ñuy jàkkaarloo ak loolu ñu gis ay nit di jaamu ëkk ñu ne Moussa defaral lu mel nii moo tax ci saase rek la leen ne innakum qawmun tajhaluun dëgg dëgg yéen ay ignorant dëgg ngeen yéen ñu réer ngeen ku réer rek mooy bokkaale yàlla fal illatu fi hada talab al ajib hiya al jahl lépp loo gis nit def ko am na lu nekk ci derrière loolu am na lu nekk ci ginnaaw loolu ñoom laaj gi ñu laaj Moussa ne ko defal nu yàlla comme ñii lan moo nekk ci ginnaaw mooy dañoo réer bu ñu réerul woon du ñu dendale yàlla wala ñu koy bokkaale ak ay yëkk ak ay garab ak ak ay ak ay ak ay ak ay ak ay mbokk yi sunu borom màgg na rëy na kawe na sell na set na ba kenn waru koo dendaleeg lenn wala kenn moo tax saa yoo ko dendaleeg lenn wala kenn mu bàyyi laa kooku moom dootu fa nekk sax di wax ana aghna ashuraka ani shirki man amila amalan ashraka ma'i fihi ghayri taraktuhu wa ghayruhu yàlla nee na man dama doylu dama doylu képp koo xam ne bokkaale nga ma wala dendale nga ma ak lenn ma bàyyi la ak kooku pourtant sunu borom daf ñoo wax loolu rek waaye ñun ñi sunu bopp sax sunu soxna yi nekk sunu kër yi bu nu fekkoon tey jii sunu soxna yi di ñu dendale kenn wala nu ñuy def boo ñëwoon léegi sa soxna togg ndogu ba pare teg ngay waaj a ndogu beneen waaye ñëw mu ne waaj a raxasul ci ndogu bi nga bokk nga naan ko ah mu ne la kii moo aye tey yaakaar naa ne ndogu boobu da nga koy suur soxna soosu di nga ko suur alaysa kazalik ah doo fa nekk di xeexal ko xuloo am na ñoo xam ne sax dina leen jaral ñoom coow li dina dina dépassé foofu am na ñoo xam ne moom dina leen jaral fekkoon na ñu ngi heure boobu ñu ngi yor pistolet seen poche douze coups yaakaar naa dinañ tiire bal yëpp wala comme ni waa ji defoon barki démb doon xeex ak jabar ji rey ko te tey bi mu ko reyee mu tiit xam ne def na musiba mu woo benn xaritam ne ko dama doon xeex ak sama jabar ma juum rey ko waa ji ne ko ah bu feeñee ne dañ lay rey kon nag ni ngay nar a def mooy fexeel ba nga setal sa bopp da ngay fexe ba nga ut benn xale bu góor bu rafet nga nax ko ba mu dugg ci biir kër gi nga rey ko dagg baat bi teg ci wetu ndaw si nga yuuxu ñëpp ñëw nga ni dama leen fekk ñuy njaaloo ma rey leen ñoom ñaar ñëpp mu ne ko c'est bien beau idée bi rafet na ok mu génn dajeeg benn xale bu góor bu rafet mu daal di koy nax dugal ko ci biir kër gi génne jaas yi dagg bopp waa ji daal di koy teg ci wetu bopp ndaw si daal di yuux nit ñi ñëw mu ne sama jabar laa fekk muy njaaloo xale bu góor bi ma rey ko gis ngeen ko ni mu rafetee ndeke moom su ma xëyee rek ci sama jabar ji la nekk mu daw di wowi xarit bi ne ko li nga ma doon wax def naa ko macha allah mu ñëw fekk bopp taawam lañ dagg moom mi ko digaloon taawam bu góor la waa ji dajeel ndek indi ko dagg bopp bi loolu loo ci jàng mooy yàlla dafa xereñ yàlla xakiim démb rek ñu ngi ko doon jàng xakiim waaye alim jalla jalaaluhu xoola waa ji pexe yi mu tëral fu mujje ci kawam la këpp waat waa ji juum na te nga ko ne juum nga mu jéem ko justifier ne neen comme waa ji da doon xeex ak jabar gi jàpp ci bopp bi diri ko bopp bi mbëkk ci miir bi waa ndaw si dee tey ko na justifier loolu mais mu mu woo xarit bi wax ko ko mu ne ko da ngay wut benn xale bu góor bu rafet nga rey ko teg ko ci wetam ndeke xale bu góor boobu moom waa ji doon wax ne dama nga wuti xale bu góor mooy jur wa xale bu góor boobu bu mu ñëwee mu gis bopp bi rek mu daal di yuuxu commencé di bërëngu ne waa ji sama doom nga rey ah secret ba daal di fay ñoom ñeent ñëpp ñu suuli ñaar ñee jël ñaar ñi tëmbal ci kaso bi waa banu Israil réer moo tax ñu ne Muusa utal nu yàlla moo tax illa gi nekk ci ginnaaw ñuy demandé ñu defaral leen yàlla mooy réer ku réerul doo fi romb borom asamaan ak suuf bi la bind bi mu lay bind tàgguwul kenn bi mu lay wàcce ci suuf tàgguwul kenn mu lay dundal bis mu ñëw dina la rey dina la fi jëlee kenn du ci mun dara nga naan nañ la defal benn yàlla wala ngay takk loo xam ne wala nga naan da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay réer rek moo tax nga gis yenn doomu aadama yi ci seen réer ñuy bokkaale yàlla tabaraka wa taala nit bu réeree yàlla mu réere turu yàlla yi réere melokaanu yàlla yi da koy bokkaale xam ngeen loolu mooy tawhid tawhidul uluhiya tawhidul rububiya tawhidul asma wa sifaat ñett yi moo am am na sax ñu ci yokk benn mooy tawhidul xaakimiya kennal yàlla ci atte moo tax justice su Sénégal mënul baax lu tax du baax te du mus a baax ba yowmal qiyaamati suñuy xaar mu baax dañuy nax suñu bopp ndax yàlla lalu ko bépp àtte li sëriñ bi di wax nee na luwaay tubaab élastique la da ngay xëcc da ngay taawi rek da ngay xëcc rek ba mu yem fi nga bëgg rek nga daal di teg loi bi nu mu ko arrangé rek noonu lay xëccee ba fi mu ko soxlaa mu daal di nat jeex na loi bi fii la yem suba bu ko neexee bu ngeen ma falee benn mandat laay def dinaa wàññi mandat bi gars yi fal la nga taw bi mandat bi non non cinq ans laa waxoon mais cinq ans yi ma waxoon cinq ans yi bokku ci foog ma defaat sept ans suñ la ñëwaatee ba sept ans yi nga ni non dama am projet yoo xam ne il faut ma yeggali ko nga taawi waat loolu moo am ci àdduna bi ndeysaan yàlla na yàlla taxaw dama kaa natt foofu rek nag waaye mën nañoo jël yeneen i message yu ko ëpp yoo xam ne chaque jour ñu teg ci bët ci loi yi waaw loi bi tey day tere lii suba nangu na ko loi bi day daganal lii di araamal lii moo tax bu ñuy xaar justice bu bu yenn saa yi ma dégg benn saa gam la je xaw ma lan je je confiance en mon xaw ma nu ñu koy waxee j'ai confiance en mon justice ma ne ko torox nga ci kaso bi lan lay dóor nga naan am naa confiance inil hukmu illa lillah benn justice mooy bu maandu mooy bu yàlla benn benn law fatimatu bintu muhammadin soraqat la qataat muhammad yadaha sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daa toog ba caag rek am benn jigéen bu sàcc ñu ne dañuy dagg loxo bi dañuy dagg loxo bi ah nit ñi ne ndaw si kat ci yax bu rëy la bokk ci famille bu rëy la bokk bu ñu daggee loxo bi affaire bi day day day ñaaw kon lu ñuy def ñu ne Zeyd yow xaritu yonent bi nga waaye tey ngaa dem rek nga wax yonent bi loolu ne ko ndaw si kii tey kii moom kii moom kenn du dagg loxo bi kii ci famille bu bokk ci maxzumi yàlla bokk il faut tey moom loi bi moom yàlla li muy kii yëpp nag tey nañ arrêté affaire bi allahu akbar Zeyd di ñëw di baab yonent bi xam ngeen baab ah ok rek yonent bi kanam gi changé bët yi xonq mu ne àddinaa ngi tukki Zeyd lu yàlla wax nga ñëw di intervenir xanaa ko moom Fatima sama doom bu sàccoon ma dagg loxo bi loolu mooy justice bu jub foofu mooy maandu te Amar ibnul Xataab loolu la doon ci yonent bi moo tax bi doom ji dóoree arab bi benn bolde ci bopp ne ko doomu arab nga may raw doomu jaam nga may raw man may doomu anabnul akramayni man may doomu ku tedd ñaar ñu tedd ñoo ma jur may course ak yow nga may raw mu jël bolde bi ne ko waa ji ndul ci bopp bi ba bopp bi tërgën mbax ne bi wadd parce que papa mooy gouverneur course la woon ñu teg coupe waa ji dagge ca làng bi gañe ko rek romb ko coupe bi rek mu dóor ko bolde bi pam waa ji daanu ndeysaan jóg munul fay waaye daal di romb gouverneur dagg biye utali madinatul munawwar ñëw fekk amir omar mu toog mu ne ko lenn dong moo ma fa indi mu ne ko lan mu ne ko diw doomam ci moo ma def nii gis nga lii de mu ne waaw lii la la mu ne ko mbolde la ma dóor mbolde mu ne loo ko def mu ne dañ doon course ma raw mu ne loolu rek mu ne lu papaam wax mais papaam toog di tàccu mu ne baax na Omar woo yónnee ko billet ne ko ñëwal aj sooy ñëw nag àndaaleel sa doom bu kontaan xamul la xew amirul muminin moo ma invité aj maak sama doom délégation bi topp ko aj jot Omar Baye bañ aj ba pare ba ñu toog nag léegi nit ñi di takk seen bagage war a ñibbi Omar woolu waa ji te ko nee na waa ji yow bul dem dama laa soxla waa ji toog délégation bi fi ñu toog rek ñu gis waa ji ne tëll Omar ñëw ne ko ku la dóoroon fii mu ne kii mooma dóoroon mu ne ko xàmmee nga mbolde bu mu la dóoroon mu ne waaw mu ne dama nga xool ci mbolde yee benn bu toll noonu nga jël bu toll noonu nga fay waa ji dem jël mbolde bi xiiral ko bu mu xiir ne ko doom ji pan doom ji egg suuf mu ne ko ñamalal baay ji mu ñamal baay ji baay ji rot mu ne ko kañ ngeen di def nit ñi ay jaam te ba leen di seen yaay di jur ay gor lañ woon kañ ngeen di def nit ñi ay jaam ba leen seen yaay di jur ay gor lañ woon waaye foofu foofu rek mooy justice bu maandu su ngeen bëggee am justice bu maandu du ñu exilé ñi tëj ñi di tuumaal ñi islam rek du ñu jël sàcc yi ndaw yi dugal ci kaso yi jël sàcc yi mag yi naan leen ay enregistrement illicite ak ay bien mal ak ay détournement ñëpp dañ naan ay sàcc lañ waaye nga sàcc milliard ñu ne lan enregistré lan illicite wala ñu ne détournement wala ñu ne blanchir di ko di ko tuddee ay tur yooyu yëpp firi leen ko ci wolof ah sàcc la du tax duñu wax sàcc la kii doon sàcc daal lii léegi ci jàkka ji bu ñu ko jàppee lu ñuy wax ku ñëw lay wax sàcc salo te sàcc ki sàcc million ngeen neen dafa détourné enregistrement lan illicite bien mal ak loolu du sàcc waaw nan ragal yàlla waay gars yi nan leen ragal yàlla te maandu sàcc yoo xam dañ leen di aar ak sàcc yu ñuy néewal doole ah ñu ndaw ñi ñoo ñoo néew doole ñu mag ñi ba ci kaso yi leen di dugal sax du bokk ba ci kaso yi lu ñu leen dugal du bokk billaahi lazi laa ilaaha illaa ngeen fa loolu maandu te la te ñëpp nekk ay sàcc bal sax ñii duñu sàcc mais ñi ay criminel lañ ndax ay milliards ñu jox la benn société nga lekk société bi parents yi doon liggéey yëpp kilifa yi doon liggéey yëpp torox mën nga fee lim ay téeméeri société Sénégal ñëpp ñu fa doon liggéey tey torox nañ ñi seen sëy yi tas na ñi dee nañ ñi génn nañ seen kër yi te la war la ko dul benn waay benn waay moo lekk alal ji dem ak moom kenn di ko wax dara surtout nag bu fekkee moom moomu sëriñ la ko jox xaalis bi sëriñ yi la ko jox wala mu jox président de la république ci parti bi la ko def kenn du ko def dara waaw bu la sëriñ yi bootee da ngay sàcc ba doyal kenn du la laal boo ko laalee rek ñu wat téléphone kii taalibe la ci kër gi ñu bàyyi la ah waaw kii foog ñu bàyyi ko ñu bàyyi la bu dee ci parti bi la moom ci parti bi nga ko def moom moom moom moom kenn dala dul audité sax bu ñu audité dañuy jël affaire yi denc ko ngeen defe ne loolu maandute la moo tax bu ngeen toogee fii naan ay justice man wóolu naa sama justice su ma déggee ci rajo bi koy wax loolu damay reetaan te xam ne yow yow mal xiyaam nga jëm foofu la justice bu maandu bi nekk waaw mbokk jullit yi sunu borom subhanahu wa taala su ko nit réeree bu nit xamul yàlla xamoo turu yàlla yi xamoo melokaanu yàlla yi da ngay bokkaale léegi léegi taxi bi ma indi tey waru ma woon ñëw sax tafsir Jurbel laa fanaan xaw ma Luga Luga laa fanaan Louga laa fanaan léegi laa wa léegi laa ñëw léegi li ma li ma métti mooy taxi bi ma jël rajo bi mu jàpp waa jàng naan man man lépp laay seet ku ñëw lépp laa lay seetal sa àdduna ak sa àllaaxira dinaa ko seet dinaa la ko seetal ma ne chauffeur taxi bi waaw yow kii li mu wax nii loo ci xam mu ne ma day fen rek ma kuy seet lépp ba pare li muy baabaade li muy wax mooy biñ ko joxee avant mu ne day seet mu ne waaw ñun lu ñu seet war nañ ko mën a gis ndax ndaw loo xam ne dafa bàyyi àdduna bàyyi caaxaan takk taxoo yàlla kooku dëgg-dëgg yàlla war na kaa mën a woon lépp lu nit soxla ah yonent bi bàyyi woon lépp te yàlla wonu ko lépp ah yonent bi bàyyi woon lépp topp yàlla lépp te yàlla wonu ko lépp alxuraan a ko wax de qul law kuntu a'lamu alxayba lastaksartu min alxayri wa ma massaniya su man yonent bi moo xamoon suba luy xew kon lu baax rek laay am lu bon duma laal damm nañ ay bëñam dóor nañ ko fase ay doomam yu jigéen rey sahaaba yi dañoo rey Umar rey Ousmane rey Ali rey Hamza li ñu rey ci Musab ibnu Umar li ñu rey ci ay sahaab kenn xamul nu mu toll xoolal li dal yonent bi ci ay métit gisul baayam yaayam nàmpalu ko dundul ak yaayam maamam dee bàyyi taxam dee soxna si mu wóolu woon doon wéeru ci moom soxna sa faatu ba yonent bi tuddee at moomu amul xusn atum njàqare tey nga gis ay dajjaal yoo xam ne fii dañuy toog naan man xam naa lépp ku ñëw ma seetal la lépp yow balaa ngay seetal lépp doo seetal sa bopp looy dem ci ay rajo di naan kaay la ma seetal le yow kay dem seetal sa bopp xam nga nit ñi foofu lañ dofee yow nga dégg ku nekk man ku ñëw ma seetal la sa lépp man kay du ma dem yow boo mënoon doo ñëw ci rajo ndeysaan mës ngeen seetaan nawetaan kan seen fi moom sa seetaan nawetaan est ce nawetaan ok très bien bu ñu jëlee 11 heures yi jël 11 heures ñu mi-temps nga gis ay nit di jóg di entraîner quoi pour ñu dugal leen waa tribune bi lu ñuy wax xamoo dara boo xamoon teel a dugg te sax ay saaga lañ ciy teg lañ ciy jiital lañ ciy jiital bëgguma ko fee wax ma yem ci rek la ñuy wax xamoo dara boo xamoon teel a dugg bu nit xamoon dina dem ci rajo naan ku ñëw ma seetal man kay yow kay da ngay seetal sa bopp kon doo dem ci rajo bi naan ñëw leen mais comme ñun dañoo feebar ñun tamit dañoo jël suñu xel teg fee gis nga nit bu laxasee xelam dénkaane ko li gën a bon ci àdduna mooy ñu tafu sa xel doomu aadama xel kese la sa xel boo ko dénkaanee terminé ñu sàcc sa portable mun nga ko jotaat da nga amaat beneen marque wala nga jëndaat wala ñu sàcc sa kalfe mun nga amaat kalfe mun nga amaat xaalis wala waaye bu ñu sàccee sa xel pare nga te nag ñu bëri tey dañoo sàcc seen xel da ngay dégg ñoon non mun na nekk non mun na nekk yàllaay maye non waaw yàlla waxul kenn dara kéemaan la kéemaan mun na nekk mooy mun a nekk dafa am loo xam ne munta nekk loolu foog nu xam ko am na mbir yoo xam ne fekk leerul ci ñun duñ jaamu yàlla fi la ñuy toog nu nuy nax feeg ñu ngi gëm ne àllaaxira am na ko fa mun dara léegi-léegi waa ji mu ne ndeysaan waa jaa ngi way naan yaakaar bu tes wala way la de yaakaar bu tes ki nga yaakaar moo munul xaw ma moo munul dara man ki ma yaakaar ku ko yaakaar yaakaaram du tas léegi rajo bi mu ay façon daal nu mu ko nu mu ko daf ko def benn riim bu garaaw laa la wax ci yaakaar bu tas la ko jële yaakaar bu tas ki nga yaakaar moom la nu xaw ma lan waruloon yaakaar ki nu yaakaar xaw ma ne xoolal xoolal wax yu bon yi léegi lan la bëgg a wax foofu ñun diw mi ñu yaakaar ku ko yaakaar sa yaakaar du tas diw lan la mën ba ku ko yaakaar sa yaakaar du tas ay nit nekk fii ci biir dëkk bi du ñu añ du ñu reer te moom lañ yaakaar seen yaakaar tasut dafa am yoo xam ne bu ñu koy wax sax nañ ko wax fële ay nit nekk fii fii laa wax ci dëkk bi yaakaar fi ay nit tëdd ci hôpital bii feebar mënuñu tus kenn mënu leen dara docteur yi sax mënuñu leen tus bis bu nekk ñu woo kooku te mënuñu ci dara ay nit yaakaar nit ah mënuñu am sax ndox mu neex mënu naan te nit lan yaakaar waaw lu tax doonu neexaluñu ndox yi lu tax lu tax lu tax lu tax indiwuñu taw lu tax lu tax yooyu ay waxu caaxaan la kuy yaakaar kenn dong nga yaakaar te sa yaakaar bu tas mooy gis nga Moussa ba mu yaakaare yàlla banu Israël topp ko Firawna topp ci mu ñëw ba ci géej gi gars yi ne ko tey ñu dee waajaa ngi nii mu ne yàllaa ngi ànd ak man inna ma'i rabbi la wax inna ma'i rabbi yàllaa ngi ànd ak man man yàlla du tas sama yaakaar mu jël yat bi yàlla ne ko dóoral yat bi ci géej gi mu dóor géej gi xar gis nga ah est-ce que yaakaaram tas na bàyyi leen kooku jël leen Ibrahima bañ ko sànnee ci taal bi Jibril ne ko loo bëgg ma fay taal bi mu ne ko ana yàlla wala yàlla intervenir am waxul asamaan tawal géej ñëwal nangam nangam safara ngelaw li fayal ma safara si déedéet waqul naa yaa naar kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahima kéemtaan leesul loolu fa araadu bihi kaydan fa jaalnaahum al asfalin safara si di tàkk Ibrahima toog ci biir di naan ataaya allah ba safara si jeex tàkk doomu taal yi ñu seen waa ji toog gis nga yàlla kenn du ko yaakaar sa yaakaar di tas abadan waaye boo bàyyee yàlla nga yaakaar keneen wala nga yaakaar leneen chaque jour ci gàcce ngay nekk ci gàcce ngay nekk chaque jour da ngay torox chaque jour di nga am mbetteel chaque jour da ngay am mbetteel banu Israël li tax ñu réere yàlla mooy xamuñu ay turam yu sell asma wa sifaat xamuñu melokaanu yàlla yàlla foog nga xam ay turam gis nga même turu yàlla yi da nga gis fi ñu ci bokkaale fi li ngay gis benn waaye boo xam ne ne man damay seet ci turu yàlla yi laay seetee même sax dañ koy bind sunu bun kër yi da ngay gén dina ngi ñu bind baduuhu da ngeen koy gis laduuhu fatilan jadilan loolu du turu yàlla xam ngeen luy fatil fatilan xam ngeen mooy lan tàndarma mooy xor kii bu buum bu weex googu loolu mooy fatil loolu day nekk turu yàlla nga gis ko ko bind turu yàlla bu mag lañ ma jox di ko wirde yaa fatilan yaa fatilan yaa jadilan yaa tàndarma da lay wax yaa yaa xooxu tàndarma xaw ma saalu tàndarma loolu day turu yàlla borom bi nee na walillahi asmaul husna fad'u biha fad'uhu biha yàlla nee na dama may tur yu rafet woo leen ma ci dama may tur yu rafet tur yooyu xam ngeen ko udu llaha aw udu rahman ayyama tadu falahu woo leen yàlla su ngeen di ñaan wax leen ya allah wala ngeen ne ya rahman tur yàlla yi ñaata la ah 80 100 man ahsaha daxalal janna ku ko mokkal dugg aljanna ku ko peeg dugg aljanna turu yàlla yi yoon di nekk ku ko peeg dugg aljanna man afsaha ah ñu ñu bàyyi turu yàlla yi di di wird yeneen tur di wird yeneen tur da ngay gis ku wird ba dof gis ngeen dof yi léegi niñ bëri ñii dañoo tax yàmbaa ba dof ñii dañoo wird dof waaw di wirt ba jinne ne deret nga départ abale waaw turu yàlla kenn du ko wirtu dof est-ce que yonent bi xam ngeen ñaata saxaaba la amoon cent vingt quatre mille saxaaba mën ngeen dégg saxaaba bu dof damay laajte ci dund yonent bi li ko ñu ko waroon ñu mën ngeen dégg ñu ne sa yonent bi amoon na saxaaba boo xam ne dafa dof xam nga tax duñ dof liñ doon wirdu du dof loo nit ya allah ya rahman ya rahim al malik al quddus assalaam al mu'min al muhaymin al aziz al jabbar mutakabbir ah al ali al rafi al kabir yoolu du dof loo nit waaye boo jëlee tur boo xam ne mën nañ ko bind fii ba asalem Paris turu jinne boo xam ne sa waay guddaay bi soo ko doon bind day fees jàkka ji ñu ne la wirdu ko bàyyil ba guddi nga toog di ko wirdu ba waa ji ne deret sa kanam ne la may yàlla nga génn naan gis naa yàlla démb loolu la de gaa yi ngeen gis ñu naan yàlla yëpp ay jinne la ñuy gis ñu ne gis naa yàlla kon yàlla soo ko réeree nga réere ay turam yu sell yi ak ay melokaanam lum lay jural mais da ngay bokkaale lii moo dal ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam àndaloon ñu romb ay nit di jaamu benn benn déem garabu déem garabu si déem ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam defal ñu comme lii waaye ñun tamit comme lii rek yonent bi ne leen yéen dellu ngeen ci baaru banu Israil ñoom ñoo gisoon ñuy jaamu xërëm ñu ne Moussa defaral nu comme ñii ñaareel bi mbokk jullit yi mooy inkaarul munkar inda wujudihi lu lu bon dañ ko war a weddi suñ ko gisee kenn ci ñun amul droit gis loo xam ne jaaduwut nga patt ci man raa minkum munkaran fal yuxayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaani fa in lam yastati fa bi qalbi wa zalika adaful iman yonent bi nee na ku gis ci yéen lu bon dindi ko ak ci sa loxo tey waxuma la ñu dindeeg suñu loxo wala ñu dindeeg suñu gémmiñ waaye ñun ñëpp da ngay gis lu bon ba pare naan ah de damay maandu rek damay maandu man raa minkum munkaran ku gis ci yéen lu bon loo xam ne munkar la xoolal tey li ñuy gis ci biir Ndakaar li ñuy gis ci biir dëkk bi munkar goo xam ne waxuma sax léegi munkar waaye loolu ëpp dépassé na sax munkar nga gis jullit weeru koor muy tox cigare wala mu toog di añ ci waxuma sax mu jël dugg ci biir déedéet waaye tagal ma fi ma añ ku añul yaa xamaa di manifesté wu loolu du munkar loolu weesu na munkar sax di ko yuuxu ci kaw di bonde tegal ñun dañuy añ ñun wóolu nañ suñu bopp dañuy lekk ba pare guuxanteeg ñoom buntu aljanna pour wan leen ne koor du dara ay julli du tus te la la gars yi di wax ndeysaan allahu akbar am na tey dañ laa waroon jàpp rek jël liif liife la ba doo toog comme waajoo ji ni muy def Pakistan Pakistan ku fa woor ba nga añ ci mbedd yi bañ jàpp la doo toog ko defati la dóor ba dootoo dem duus gis naa ko barki démb gis naa ko démb Tunisie ay nit di doon mars naan dañoo bëgg ngeen bàyyi ñu añ waaye ba leen ko police yi fekkee il faut nit ñi xam ne ñun ay jullit lañ jullit nag du làmmiñ kese di wax rek man jullit laa déedéet jullit ay jëf la dañ koy dund muy daw ci sa yaram su lislaam bégee nga bég su lislaam amee méttit nga am méttit nga koy yëg ci sa yaram dafa am benn borom xam-xam bu mag yaayam da koo xool ba si yàgg daan ne nit ñi sama doom ji bu islaam amee ndam dama koy xam bu islaam amee problème dama koy xam ñu ne ko lan mu ne ci kanamam laa koy gis saa yi ma ko gisee mu sawar mu kontaan di ree damay xam ne tey jullit ñaa ngi ci jàmm waaye su ma ko gisee mu triste rek damay xam ne quelque part ci àdduna bi jullit ñi am nañ méttit loolu mooy diine waaye jullit yoo xam ne ñoom ñooy rey seen diine ñoo koy rendi ñoo koy fees ñoo koy saam ñoo koy séddale ay jullit yoo xam ne au lieu ñu dundal diine mais dañuy dundee diine dundal diine ak dundee diine du benn de waaw am na ñoo xam ne ci réew mi seen yoon ci diine dañ koy dundee rek sama maam sama papa sama baay kese diine ji defuñ ci dara juzu am ma sax mokkaluñ ko mënuñu ko sax tafsir jànguñu benn hadis dara lañ xamul ci diine lu dulaal inna wajadna abaana ala umma wa inna ala asaarihim la muhtadin fekk naa rek sama ndey sama baay moo doon ilimaanu jàkka ji jóge na fi maa koy remplacé ku mu neex ku mu naqari maa fi toog ndax jàkka ji sama papa ko tabax wala daara ji sama papa fi doon jàngale maa fi toog ku mu neex nga toog ku mu neex nga julli ku mu neexul nga dem nga dem feneen munkar yàlla daf ñu sant ne suñ gisee munkar nañ ko dindi première dindi bi mooy ñu dindi ko suñu loxo suñ ci mënee ñu dindi ko suñu loxo suñ mënul ñu wax ko dénoncé ko suñu ustaas daf ma doon wax ne Saïd ma ne ko ah mu ne gars yi dañoo wax ba li ñuy wax samp wax leen ba mu dajjee ko li ñu dund li ci Sénégal gars yi dañoo wax ba mu samp rek wala ñii falu politiciens yi dañoo wax ba falu wala oh ñun amuñu gémmiñ lan moo tax ñun ñu ragal lu tax politiciens yi ñeme kaso ñun ñu ragal ko te ñoom li ñu li ñu li ñu li ñu bëgg àdduna rek lañ ci am ñun lii nuy wax yàlla lañ ci namm wa tarjuna min allahi ma la yarjun yéen am ngeen ci yàlla yaakaar loo xam ne ñoom duñ ko am ibnu taymiya danoon wax ne suñ ko ne bàyyi li ngay wax mu ne du ma ko bàyyi ñu ne ko dañ lay rey mu ne ma dugg àjjana dañ lay tëj kaso mu ne ma dugg xalwa dañ lay exiler mu ne ma def tourisme lan la perte saxaaba yi ñoom dañ doon wax ne imma nasr wa imma shahada xam nga lu tax yonente bi alei salaam dund at yu ndaw yonente bi bi muy am ñaata at la ko yàlla yónni la ko yàlla yónni bi muy faatu ñaataal la am 63 ans ñaataal la dund diine 23 ans mu samp islam ci kaw suuf mu samp drapeau bi ñuy àttee l'islam di dund diine 23 ans xam nga lu tax parce que ñi mu yaroon daf leen yar ne imma shahada wa imma nasr dugg àjjana rek wala dee su ngeen ñu bàyyee ñu samp kàddu yàlla bu ngeen ñu reyee ñu dugg aljanna xam nga jullit moo tax kenn mënu xeex ak moom ndax soo ko reyee day dugg àjjana boo ko bàyyee mu def li yàlla bëgg yéeféer nag amul dara àllaaxira àdduna la am moo tax day def tout pour àdduna am jag yawaddu ahaduhum law yu ammaru alf sana kenn ci ñoom bëgg naa dund junni at jullit nag bu àjjana taxawee léegi mu dem mu pare pour dem xool leen Palestine xale yi barki démb laa gis benn waay benn soldat israélien sànni sànni lacrymogène pan benn xale capté ko daal di koy seex na ko ni waa ji dof xam nga kooku daf lay wax ne man lii nga sànni ragaluma ko jël ko daal di koy seex muy saxaar mu seex ko mu ngi ci internet bi mu ngoog jullit tey jii jullit yi yaafuus moo tax sunu diine mënta samp munkar dañ ñu ne saa yi ñu ko fekkee fenn nañ ko fa jële inkaarul munkar inda wujudihi su nit defee munkar nañ ko dénoncé léegi léegi buñ bàyyi ba mu dem da ngay dem ci ngénte nga dem ci céet nga dem ci dëj nga dem nga dem nga dem nga fekk koo xam ne dañ naan kilifa la mu ñëw def lu ne weng ñëpp ne nii kenn du ko ne ah waaw ni nga ko defee nii nag ndax lii moom fii bii moom ban ban mazhab la kenn du ko laaj tey sax dañoo dem ba kenn ñemewul laaj kilifa diine masala ñun yambal yi rek lañ yàpp buñ julee pare ah oustaz am naa laaj ah non am naa laaj am naa laaj am naa laaj kilifa diine yi kan moo leen ñeme laaj wax leen ma kan moo ñeme dem fekk benn kilifa bu sëlmal julli nga ne ko asalaamaaleykum ñu ne nga ne ko dama am laaj dañuy waay waay dóor nañ ci waay dañ lay dóor duñ bàyyi sax nga wax am na benn sëriñ bu doon ne day leeral benn masala naan xabdu xabdu fan ngeen gis xabdu ci téere fan kilifa gu mag la na fan ngeen gis xabdu rek benn waay jóg xoola rasul ñu ne door leen ko ah moo la ñoo bàyyi mu eggali ko waa ji keroog ci fenêtre lañ ko jaarale surtout ñu rey ko dañ ko jaarale ci fenêtre yi sinon dañ ko naroon rey fenêtre lañ ubbi tëbal jàllale ko foofu ne ko dawal sinon toujours ñu rey ko ci biir jàkk ci pourtant sëñ bee ko wax de moo laaj fan ngeen gis nangam ah loolu kër kërti wérul rek waa ji jóg qaala rasul sallallahu rek ñu ne dooral ko way day di ngat mën nañ ko bàyyi mu yëggale munkar saa yañ ko gisee waruñ ko bàyyi ndax bu ñu bàyyee lu bon mu sax tey jii bu ñu ñëwee fii def fi lu bon ñi toog dañuy yaakaar ne lii lu baax la suba dañuy ñëw def ko bu ñu demee dañ koy tasaare ah man kat gis naa diw di ko def ma dama koy def moo tax munkar dañ ko war a dénoncer wal usuru alayhi bi uslubu lazi yughayyiruhu ci méthode bi méthode bu ñu xamee ne lii suñ ko defee mu dañ dañ ko war a defee noonu fekkee wax a koy dindi ñu wax su fekkee loxoo koy dindi ñun su fekkente ne xol bi mettit lu ko ci sa xol moo koy dindi nga mettit lu loolu buñ ko jàngoon ci sunu biir kër yi léeg-léeg sa kër nga ñëw fekk fa loo xam ne wax moo koy dindi nga sempi ko sànni ko fële léeg-léeg am loo xam ne loxoo koy dindi léeg-léeg am loo xam ne da ngay mer rek ne këj ah ñu xam ne li fi am neexul borom kër gi li fi am neexul kilifa gi da ngay mer rek doo sax wax voilà lu nekk ak système am système am bu ñu koy dindee su fekkee mbir mi dafa laaj wax na la ñëpp dégg. mais tey Sénégal imaginel balaa ngay dégg kilifa diine bu wax rek dañoo laal tarixam wala wala mais bu ñuy wax fi islam xoola théâtre ni ñuy xasee julli kenn doo wala ni ñuy saboté corps ni ñuy saboté imam yi di saboté alquran kenn doo dara mais cëy bu ñu laaloon dara ci benn kër tarixa ñu laal dara foofu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon suba dafay mel ne Sénégal dafa am guerre civile ñëpp ngay dégg ñu wax loolu fu ñu ko teg xanaa xamu leen ne balaa ngay nekk ci tarixa da ngay nekk jullit ba pare beneen bi sax mooy est-ce que ñun sant nañu ñun ñu ut tarixa loolu question la est-ce que sant nañu ñu dund tarixa est-ce que yàlla moo ñu dund tarixa est-ce que yàlla moo ñu utal suñu bopp ay tur est-ce que yàlla moo ñu ko sant benn tur lañu yàlla tuddee wa sammaakum muslimina min qabl benn tur benn tur lañu yàlla tuddee mooy jullit benn diine la yàlla am mooy même même ñi naan christianisme judaïsme sunu mbokk chrétiens yi sunu mbokk dañoo juum yàlla amul diine bu tudd nasaraan yàlla amul diine bu tudd yahud inna diin indallah baatu diine baatu diine xool leen ko ci alxuraan ba mu jeex amul jamu yépp mufrad la baatu diine amul jamu ubbi leen ko alxuraan bi 114 saar baatu diine amul jamu yépp diin diine bi Ibrahima indi woon moom la Moussa indi moom la yonent yàlla Muhammad ñëw tëj ñoom ñëpp da ngay dégg kenn ku ci nekk muy conseiller wala muy wax nit ñi nañ nekk ci dañ nekk ci lislaam amu ci kenn ku ne nekk leen yahud même gars yi sax bi ñuy xëccoo naan ibrahima yahud la woon nasaraan yi naan ibrahima nasaraan la woon yàlla mu ne maa kaana ibrahima yahudiyan wala walakin gis nga kaana musliman xanifan walam yaku min al mushrikin jullit la woon musta bokkaale yàlla loolu la Suleymaan wax même Balqiis ba muy tuub Balqiis ba muy tuub waxul maa ngi jébbulu ci Suleymaan dafa ne aslamtu maa Suleymaan maa gis ngeen erreur yi ñuy def li ma doon wax sànq ñun nag dañoo réer dañoo réer ba yàqu comme xamuñu diine moo tax dañuy jalgati di def ay musiba ba pare li doy waar mooy dañoo defe ne lu baax la ñuy def fekk li ngay def lépp lu bon la dara baaxu ci kon sant nañ ñu ñu dindi lu bon loo xam ne jaaduwut ci dëkk bi wala ci pénc mi wala ci kër gi wala ci gox bi wala ci barab bi dañ ñoo sant nañ ko dindi ak système boo xamante ne moom la yeyoo dindi lu bon loolu lu mu laaj rek su fekkee wax la laaj su fekkee jëf la laaj su fekkee naqar la laaj ñu def ko ñetteel mooy istihbaab at tazkir bi ayaamillaahi xayriha wa sharriha dañoo bëgg ci jullit yi ñuy fàttalante bési yàlla yi wees yàlla dafa amoon ay bésam bés yooyu am na ci bés yu neex am na ci bés yu naqari loolu dafa jaadu ñu koy waxante suñu biir ndax ñu xam ne bu ñu toppee yàlla dañuy am ca bés yu neex ya bu ñu moyee yàlla dañuy am ca mu tax chaque jour da ngeen dégg yonent yi naan leen ah xanaa du ngeen xool nit diw ya nuux bi mu ñëwee da leen doon wax ne xanaa fekk loo leen démb aadama nitam ya ibrahima ñëw naan nitam yi xanaa gisu leen nitu nuux ya lu ñu doon def Moussa ñëw naan nitam ya xanaa gisu leen nitu ibrahima lu ñu doon def Isa ñëw naan nitam ya xanaa gisu leen woon nitu Moussa ya Muhammad ñëw naan leen xanaa gisu leen woon ñi luñ doon def kon chaque jour mbokk yi dañu sant ñuy fàttantale lan mooy jouru yàlla yi am na ci yu neex nag comme bis bi yàlla di labal Firawna bis bu neex la woon moo tax sax banu Israël bu ñu traversé géej gi dañoo woor pour sant yàlla yonent yàlla muhammad gàddaay jóge màkk ñëw Medine mu fekk yahud yi di woor mu ne ne tax ngeen di woor ñu ne ko yàlla dafa labaloon suñu noonu ñuy woor tey pour sant yàlla mu ne leen ana awla bi Moussa maa leen gën a yey ci Moussa maa leen gën a yey mu ne dinaa woor ren su ma fi déwén fekkee ma woor ñaar yonent bi nag yàlla bi mu ko yónnee moom moom dafa ñëw pour opposer yahud yi yahud yi bu ñu defee benn ñaar lay def bu ñu defee lii mu def lee moo tax chaque jour nga gis yahud yi naan waaw kii lan moo ko dal moom daa mel ne yàlla da kaa yónni pour mu wuuteeg ñun mu ne waaw yàlla ma yónni pour mu wuuteeg ñun fekk na leen ñuy julli di jublu masjid al aqsa moom mu jublu fan masjid al haram fekk na leen bu ñuy julli seen nodd ñii dañuy fëgg cloche keng keng keng ñii di jël tuur ba jën di yuuxu moom mu daal di indi nodd fekk na leen ñuy caaxaan samedi ak dimanche mu woor ko ba pare di indi ajjuma wuuteeg ñoom fekk na yahudi di feetu samedi nasaraan yi di feetu moom mu indi ajjuma mu fekk leen nasaraan yi di wat sikkim ba mu set wécc bàyyi lii mu fekk yahudi yi dañuy bàyyi ñaar yëpp mu ne yéen wàññi leen bii ngeen bàyyi bii ngeen wuuteeg ñoom ah gis nga xaaliful yahud wal mushrikin da ngeen wuuteeg ñoom kon yonent yàlla da kaa yónni pour muy wuuteeg ñoom tout le temps tey ji bu yonent bi ñëwoon fii fekk suñu mbokk yi di nuroog yahud yi nga gis nit ñoo xam ne daanaka ñii ñoo yahud yi benn lañ waaw tur rek la leen changé tur waaye melokaan waajëb yahud la tout kee melokaanam yëpp nasaraan la te yow ñu ne la wuuteel ak ñoom yahudi seen soxna bu amoon bu gisoon mbaax dañ koy génne dugal ko ci ruq tëj ko du ñu lekk ak moom ba mu set yonent bi ne yéen isna'u kullu shay illa aljimaa nekkal ak soxna si bu kenn xam ne sax kii am na lu ko dal def leen lépp même bu guddi jotee fanaan leen bokk leen lal yaramam mun ngaa laal fépp ba mu des jumbaxam ak oomam isna'u kullu shay illa aljimaa moo tax ndeysaan foofu mooy dernière tomb ci ñoom ba ñu déggee yàlla yàlla wàcce loolu ñu ne ñun de kii doy na waar ñun de waa ji dëgg dëgg dëgg sunu noonu dëgg la ñun lu ñu def mu def leneen su yonent boobu tey ñëwoon fii tey Sénégal fekk jullit ñi di toppandoo yahud yi ak nasaraan yi ci seen lépp yahud yi ak nasaraan yi la ñuy topp bàyyi fële yonent yàlla Muhammad bal sax yahud yi la ñuy faral tey problème Palestine baa ngi nii sunu ministre yeeg sunu sunuy sunuy ñooy dem ba Israël di jàppale yahudi mbirum Palestine sax doo ko dégg Sénégal nit ñi di ko wax day néew nga dégg nit di ko wax booboo ci gën a ndaw misaal rek laa ci doon joxe waaye taxumaa jóg mbokk jullit yi di fàttali nit ñi ayaamullah bi tazkir xayriha wa sharriha loolu lan la ñuy jural listijlaabil mawisa linnaasi laallahum yatuubuun day tax nit ñi mën a tuub suñ la fàttalee nitu nuux yi nangam lañ defoon yàlla mbugal leen ibrahima nang nitu ibrahima yi ñoom sàngam ñoom sàngam ba ñu moyee yàlla yàlla da leen a mbugal ñoom diw ñoom diw ba ñu toppee yàlla yàlla da leen a teral loolu ñaar lañ ciy jëlee boo déggee lu baax li nga jéem a baax boo déggee lu bon li nga jéem ko sori ñeenteel mooy ar rabbu taala yabtali bil xayri wal xayri yàlla day natt ci lu baax ak leneen lu dul lu baax am alal nattu la ñàkk alal nattu la ñaarib nattu la wér nattu la feebar nattu la am nattu la ñàkka nattu la fa amal insaan iza mabtalaahu gis nga baat bi la yàlla indi rabbuhu fa akramahu wa amma iza mabtalaahu fa qadara gis nga ñaari ibtilaa la am am bu am am nattu la yàlla di xool am am bi nga am noo koy def ndax yow alal ji la yàlla may da nga ko ci liggéeyal wala ay xumbal rek ngay organiser wala ay pujum wala ay làmb ngay tëgg yàlla day xool ndax da ngay tabax jàkk ndax da ngay dimbali miskin yi ndax ndax ndax ñaari yëpp nattu la ki ñàkk yàlla da ko nattu moom tamit xool ndax dana muñ démb laay gis ci facebook bi benn waay di agressé benn jigéen moto la yor dafa këf saag bi ba ndaw si daanu ba nekk en commun ndax nu mu mettee ni mu ko këfee mais ndeke fi mu doon këfe saag bi caméra surveillance mi ngi fa di filmer ndaw si muy dox mu ñëw ginnaaw moto bi këf saag bi ni mu ko xëccee ndaw si dafa daanu ci tali bi ba dafa xëm waaye loolu démb barki démb laa ko gisoon tey bi ma nekkee ci yoon bi di ñëw may xool sama page ma gis waa ji jàpp nañ ko parce que dañoo publier dañoo publier photom ne ku ko jàpp dinañ la jox xaalis ci benn kër lañ ko fekk dëkk bu tudd Yemen Yemen xaw ma kan mooy sàccati ci àdduna waaye du kooku moom kooku moom dootul agressé de c'est sûr que moom ci boppam sax xam na ne dafa gaañ ndaw si waxuma waxuma dafa yóbbu saaku ndaw si mais daf ko gaañ maa ngi gis ñi def commentaire ci page ndaw si ci page bi di ñaanal ndaw si ñu ne mu ngi hôpital dafa xëm ndax ni mu daanoo ci tali bi mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala day nattu nit wala kooku ñu nattu mu nekk sàcc yor motoom yow yàlla nattu la nga am ñu lay sàcc yàlla nattu kii day naan sàngara yow yàlla nattu la doo naan ke yàlla nattu ko muy def leneen yow yàlla nattu la doo def loolu yëpp nattu la waaye lan moo jaadu ci ñaari nattu yëpp ku yàlla nattu mu nekk ci lu baax dafa war a sant yàlla te jàpp ci mu dëgër continuer ku yàlla nattu mu nekk ci lu bon dafa war a gaaw tuub balaa mu cee dee ndax boo dee ci bàkkaar rek musiba dal la kenn ci ñun warul nekk ci bàkkaar naan ah waaye xam naa quelque temps dinaa ko bàyyi fii ak jamono bu ndaw kaa xam naa temps yi instant yi moom waaw bu ma xawee mag paa yi ngay gis fii ñu nekk ci lu bon bi ñu nekkee xale lañ ko commencé ñu naan leen tuub leen ñu naan noo xaaral ba ma mag soo màggee dootoo ko bàyyi boroom xam-xam yi dañu ne boo mag boo nekkee ndaw ci dara da nga ciy màgget boo ci màggetee da nga ciy dee boo ci deewee ñu dekkil la ci soo ci dekkee dugg safara ma tax moo tax mbokk yi képp ku nekk ci lu bon da nga war a gaaw tuub ndax dee day bettee dee day bettee xamoo kañ ngay dee yaa ngi dox rek xamoo fan la la dee di fekk xamoo fan la la malakal mawti di këfee oustaz qasim kaay jàngal ñu suñu dars tey kon incha allah su kàttanu borom bi ñeenti aayooyu la ñuy jël ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu ko incha allah bismillah tajawazna bani israila albahra
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين
waasil
وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم barakallahu fiik jazakallahu xeyran yal nañu yàlla fayal yiw sunu boroom subhaanahu wa taala mu génn di wax waa banu israil beneen melokaan nag léegi bu mu nekk ak ñoom mu ne haza bidaaya qisasun jadid li nabillahi taala Musa lii benn nettali la benn histoire la bu ñu yàlla di rappelé waat dañu nettali ci dund yonent yàlla Musa léegi mbirum Firawna gas nañ ko moom xóot suul Firawna dee na waa banu Israayil noppalu nañ ci moom yàlla ñuy nettali léegi nag ba banu Israayila jàllee géej gi ànd ak Musa mu ne wa jaawazna bani israila albahra man yàlla traversé na jéggiloo na ñooñu ñu naan doomu yaqub mooy banu israil yàlla nee na jële naa leen ci tefes bi yóbbu leen tefes gële xam nga ñun ci suñu réer jàpp nañ ne bu ñu nekkee ci tefesu géej nga gis géej gi da nga naan fële de dara nekk fa wala ah lu tax nga ni fële dara nekk fa parce que séenoo fa dara da nga yaakaar ne foofu ndox la déedéet géej gi ci digg bi la nekk fii ay nit a fi nekk boo traversé géej gi xëy na day gudd day yàgg waaye soo ko jeexalee fekk ay nit foofu moo tax sahabatul kiram bi ñu waree seeni fas di tasaare l'islam ñu dàq fas yi ba ci océan Atlantique bi boobu ñu ngi jóge Hijaz ñëw ba ci géej gi ñu waat ci yàlla ne bu leen wóoroon ne ginnaaw géej gi ay ndëng fa danañ traversé géej gi yóbbu diine ji mais boobu ñoom xamuñu woon ne ginnaaw géej gi ay nit a nga fa mais gis nga dañoo waat ne ñoo ngi waat ci màggaay yàlla bu ñu leeroon ne ginnaaw géej gi ay nit a nga fa danañ traversé géej gi yóbbu diine ji te da la ñuy traversé géej gi ak seeni fas allahu akbar ndax seeni pas-pas yu dëgër ndax seeni confiance yu ñu am ci seen borom tabaraka wa taala tas nañ diine guddi tas nañ diine bëccëg dem nañ ci tàngaay dem nañ ci sedd dem nañ ci tàngaay ba seeni weewu tànk yi teggeeku dox nañ ci sedd ba seeni deru tànk yi lemu dox nañ ba xiif mar ba benn nit ci ñoom da tàndarma da ngay màcc jox kenn mu màcc ndox da ngay guux jox kenn mu guux waaw looloo tax diine bi tasaaroo tey diine bi bu fekkoon ne ñun ñii rek la ñun la kon diine du dem fenn fekkoon ñun ñun ñooy tasaare diine ñun ñii fu diine di dem yow diine sa kër sax munoo fexe nit ñi yow fajar julli nooy tasee diine ah xoolal loolu sa soxna sax munoo ko julli loo fajar sa soxna boo jógee julli ñëwaat fekk sa soxna tëdd boo ko nee julli nga mu génne mbàjj bi ne la nii da nga naan ah waaw baax na yaa xam de ah waaw man sama bopp laa jullil yaa xam de doo fa nekk kenn du la dégg pourtant tey jii boo wàccoon léegi ñëw tafsir tafsir bi jeex nga dem ndogu nga ñëw gisoo dara ba mu des 10 minutes gisoo dara nga ne waa yow xanaa toggoon na ko mu ne no tey ndogu amut ah su boobaa ñëpp xam ne mën nga wax.
allahu akbar kon kay guerre guerre civile mooy am ci kër gi bu doon bu doon du ndog bu doon du koor bu doon añ la ak ndékkeeg reer tamit kazalika bu doon sa yére bi tamit nga ne foo tamit sama yére bi suba damay génn defar defar ma ko ba mbaax suba moom ginnaaw suba moom laay sol nga toog ba heure dem bi jot nga ne ko yow ana sama yére bi nga sangu ba pare nag ñëw sama yére boobu ma la waxoon nga defaral ma ko defar nga ko mu ne la non defaruma ko de allahu akbar ci diine rek ngay gis moo tax ndeysaan benn procureur nee na nekk naa tribunal nangami at musuma gis ku fasa jabaram ndax julliwul musuma ko gis te nee na ñaari dossier moo ëpp tribunal mooy mariage ak miraas ñaari ñoo ëpp tribunal mais nee na mariage ak miraas doo ci gis mukk borom kër goo xam ne jabaram da dul julli wala jëkkër joo xam ne du julli ndaw si porte ko plainte nangam nangam bëgg a tas déedéet moom kay dundaluma wodduma sànguma nangam affaire àdduna rek maa ko bëggoon bëggatuma ko waaye diine ah man de man lu néew lu néew lañ may woo téléphone oustaz salaamaaleykum wa rahmatullah man sama jabar du julli loo ci xam wala man sama jëkkër du julli loo ci xam man de lu néew lañ ma koy wax lu néew néew maanaam mun naa ne at bu nekk benn yoon yéen yaakaar nga ne yéen yaakaar ngeen ne jigéen ñi ñoo ngi julli yaakaar ngeen ne borom kër yi ñoo ngi julli bu fekkoon ne borom kër yi ñoo ngi julli ak seen kër yi kon mbir mi du mel nii su fekkoon ne borom kër yi ñoo ngi julli kon jàkka yi day fees daal fajar mel ne jour vendredi man suñu koñ am na ñoo xamante ne ci koor gi laa leen commencé gis jàkka dama naan nii rek gis kenn ku ma xam ne ma ne ko nii xam naa ne léegi mu noppalu bientôt ñaata fan a ci des sept jours ah bientôt sept jours waaye doo ko gis jàkk ñoo xam ne weer koor weer koor la ñuy dem jàkk du ma fàtte mukk benn fajar boobu sax du koor benn waay suñu koñ bilaalu jàkka ji di ko gis rek tiit ne ko mbaa jàmm la ana samaam bilaal bi dafa yaakaaroon ne waa ji caabi morgue bi lay jël si moo tax dafa ji ko gis rek ne ko mbaa jàmm la an samaam allahu ak xoolal jullit ñu gis ko ci jàkk tiit yow jullit ñu gis la ci jàkk tiit kooku xam nga ne kooku waroon naa rus keroog bi mu paree ma nuyu ko ne ko demba dégg nga bilaal de waaye mu naa waaye bilaal da ngay waaru quoi lan lay lan la may gis di tiit ma ne dafa la fi dul gis dafa la fi musul gis bu la fi doon gis bis bu nekk du tiit ma ne ko dégg nga lu mu la laaj ana sa maam mu ne waaw wax nga dëgg de man ko xam nga lu tax mu laaj la loolu ma ne ma ne caabi morgue bi la da nga ne sa maam dafa wàcc liggéey mu ne waaye paa bi yàlla na wa jaawaz na traversel na bani israil albahra gis nga yàlla lii nag moo war a tax ñu xam ne yàlla mooy yàlla xool géej ni mu toll géej géej ni mu toll ngandaay ñu ne la dóor ci yat nga dóor ci yat géej gi ubbeeku yat bee ubbi géej gi ah ku ubbi géej gi allahu akbar yat kese ñu dóor ko ci géej géej gi ubbeeku yàlla ne waa banu israil traversé leen banu israil jàll ba jeex firawna commencé dugg Moussa jël ñaari loxo yi naan day jàpp cat yi di ko tëj yàlla ne ko watrukil bahra rahwan bàyyil géej gi mu dal dama sa yoon mbir mi du sa mbir bàyyil géej gi la ko yàlla wax Moussa wane ginnaaw firawna dugg yàlla bàyyi ko ba mu nekk ci digg géej gi yàlla nee na ma tëj géej gi ci kaw moo tax bu ñu la laajee ne la benn place ci kaw suuf boo xam ne benn yoon la mës a gis ngelaw ban place la looy tont mooy géej googu place boobu benn yoon la mës a gis ngelaw naaj mooy keroog biñ ko ubbee bis boobu la mës a gis ngelaw bis boobu la mës a am naaj benn bis boobu banu Israël jàll firaaw na dugg yàlla tëj géej gi waaye xam ngeen ne mbir mi du yat bi mbir mi kan la sunu borom la léegi nag yow jullit bi nga gis yàlla moomu ak ni mel yàlla di la nettali loolu te amoo confiance ci yàlla yàlla moom di la nettali lii nga koy jàng moo ngi nii wa jaawaz na bani israila al bahra ma traversé leen ma labal seen noonu waaye lan moo leen dal fa ataw ala qawmin yakufuuna ala asnaamin lahum bi ñu traversé ñu dox ay kilomètres rek ñu fekk ay nit di jaamu benn ëkk wala benn yëkk ñu fekk benn ay nit jaamu nag ñi jaamu nag wala may wax benn ustaasu séeréer mu ne ma yéen la yéen a doon jaamu yëkk gi ndax ay pël ngeen xam nga pël moom moom yëkk yéen la Moussa traversé banu Israël rek ñu romb ay nit defar seen yëkk di ko jaamu lan moo dal banu Israël bi ñu gisee yëkk bi au lieu ñu xam ne ñi dañoo réer qaalu ya Moussa ij'al lana ilahan kama lahum aliha waaye yooyu tamit Moussa defaral ñu yàlla comme ñi nuñ amee yàlla bi ñoom fàtte nañ ne léegi léegi lañ ànd ak yàlla joo xam ne kenn waru ko dendaleeg lenn xoolal lim leen defal waaye ñu fàtte xam nga lu ko waral nit gis nga nit su jàngulee loo bëgg a bëgg a jaamu yàlla day des parce que jàngoo Sëriñ Aadi Touré day nettali nee na dafa am dama am taab taab bu metti nee na ma añ ba pare rek tëdd ndeysaan njaganaayoo sama njaganaay tëdd ci suufu garab gi nee na sama taalibe bi daw rek ñëw ndeysaan gis na ma ma tëdd bëgg na ma kontaan rek mu tàmbali di ma bës ndeke ca taab ba la tàmbalee mu bës ma ne wooy mu bësaat ma ne ah mu defa ne coono gi la mu ne mu gën a bës ma ne ku doy na doy na doy na doy na dama taab yaa ngi may gaañ yaa ngi may gaañ mu ne loolu lan lañ ci jàng mooy da ngay bëgg a def lu baax fekk yaa ngi gaañ da ngay bëgg a jaamu yàlla fekk yaa ngi yàq parce que xamoo moo tax ku jàngul musiba ngay def l'islam kenn waru cee nekk te jàngoo kenn warul lay ne man damaa màgget damaa am jabar am naa léegi ñetti soxna am naa ñeenti soxna wala léegi damay liggéey wala léegi paalaa damay rus a jàng déedéet yonent bi muy jàng ñaata la am mbokk yi yonent bi muy jàng ñaata la am 40 ans yàlla ne ko iqra bismi rabbika alladi xalaq jàngal yow nga ne man dus naa jàng te buñ la yónnee léegi benn portable boo xam ne mënoo ko manipuler di nga ko jàng de buñ la yónnee benn appareil télé boo xam ne mënoo ko léegi buñ la yónnee oto léegi luñ la mën a jox ci àdduna di nga fexe ba xam lii lan la waaye diine nag nga nekk fanaan man léegi mag laa daal rus naa gàddu sama téere dem jàngi waaw dama rus naa rus naa rus naa rus naa même sax boo jëlee jàngalekat sax da ngay dugg ci biir néeg bi tëju tëju ay ay nañ nañ nañ tëju fii balaa nit ñi di ñëw lu ñuy tëju xanaa la ngeen def lu bon jàng jàng lu ñu ciy tëju yonte bi ko Jibril doon jàngal da doon tëju léeg-léeg kilifa woo la ci ruq ne la xam nga ñun rek nasaraan bee ñu alak nasaraan bee ma sànq léegi dama bëgg nga jàngal ma ndax damay waaj a aji wala nga bañ a bàyyi bay aji màkk naan da ngay jàng xam nga ne aj boobu du baax wolof yi nee nañ dànk bi daan mbër kañ nga koy lekk dank bi daan mbër kañ la ko mbër mi lekk bi muy bëri ji ah mbër bi añ bi mu añee bëri ji añ boobu moo ko tax mu daaneel ban moo tax mu daan añu démb yi moo formé wu doole nekk ci yaramam waaye añu tey bi reesagul soo bàyyi bay aji màkk commencé jàng am na maire yoo xam da nga leen di ñëw bismillahi tawakkaltu ala allah pour bu ñuy génn kër gi rek bala ñu koy mën deux ans am na ñoo xam da ngay wax bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah ñu ne waaw nga ne ko mokk na mu ne waaw mokk na waaw mokk na waxal bismillah tawakkal ah moo ko nga ñëw suba waay waay waxalaat ma ko aj bi yëpp loolu rek ngeen di jàng benn boobu aj bi ñooñu sax tànn nañ ñi nañ moom dañuy dem ba màkk naan la maa ngi sa ginnaaw loo def rek loolu la maa ngi sa ginnaaw loo def ma def maa ngi sa ginnaaw loo def rek moo tax bis bu la yàlla defee ngay ngay ngay ngay nekk giid dañ lay jàpp ba boo ñibbisee fii di nga tëdd 6 mois dañ lay naja naja naja ku nekk day téye fenn ku nekk day ngëb duñ la jàpp sax ndànk ndax dañ lay bañ nga rëcc leen wala nga raw leen wala ngeen réer mu ngoog boo ñëwaatee fii doo jëriñ di nga toogaat ay mois di lekk di naan di defar sa yaram ndax nag nappaaje yu ñu la nappaaje am na ci ñoo xam ne nag waxuma sax ñooñu waaye am na ci ñoo xam ne réer nañ réer goo xam ne egg nañ màkk ak dootoo leen gisati cootali la ñuy tëdd comme comme comme waaja ñu yee ko mu xool waa ji ko yee lan la d'accord gaa yaa ngi dem Kaaba ga de mu ne waaw yeewu fekk nag ñëpp toog mu ne su may nelawati ku ma yee maag yow la bu ma kenn yee kuy dem dama sa yoon benn waaye ndeysaan toog ba ci àgg ne kii il faut ñu wax ak moom ñu ne ko cheikh bi comme yàlla dimbali na nga ñëw nga fii dañuy dem Kaaba ga mu ne ko yee màkka la ñuy wax fii màkka la fii du màkk fii nu mu tudd waaye ñu ne ko màkka mais mu ne ko amul mais bu ma kenn la bàyyi leen ko kooku loo ci mën kooku yàq na bii yàq na xaalis mënoon na koo jox koo xam ne diine ñor na ko mbokk yi sunu borom nee na ñii ak xéewal gi leen yàlla defal yépp ak won leen ko yàlla traversé leen ñu gis ay nit yu bóof ala qawmin ya ku fuuna dañoo bóof xam ngeen luy bóof bóof xam ngeen luy bóof mooy lan ah gis ngeen ginaar ni muy toogee ci kaw nen ni ginaar di bóofe nenam yi wala mu bóof cuuj yi ñii noonu la ñu bóofe ci seen xërëm pourtant Sénégal da ngay gis ay nit yu bóof ci bàmmeel bóof nii ci bàmmeel bi te dafa aram kenn du bóof ci bàmmeel yonent bi nee na rubba qabrin yukaf wa saahibul qabru fi nnaar bëri na qabru bu ñuy wër di ko ziyaare yonent bi nee na fekk borom a ngi safara hadis yonent bi nee na al qabru rawdatun min riyaadil janna aw xufratin min xufari nnaar bàmmeel ñaar rek la bàmmeel li tax yonent bi di tere ku ko tabax ñaar kese la rawdatun min riyaadil janna aw xufratun min xufari nnaar benn bàmmeel bi nekk benn jardin ci jardin aljanna yi bàmmeel bi bu fekkee ne waajaa ngi aljanna est-ce que ku nekk aljanna ñu tabax sa bàmmeel di nga ko sentir yoof ngay dem yoof yoof gis ay étage yoof bii bàmmeel yi ah comme ay kër bàmmeel yu luxe yu rafet da ngay gis bàmmeel yoo xam ne karo marbre lañ ko defaree marbre benn bi lu muy jar benn karo marbre waxuma nu mu tuddati mètre bi de benn karo marbre lu muy jar nga gis ñu jël ko di ko defal ku dee wala ñu jël bàmmeel bi karole ko tout ba bàmmeel bi ngelaw sax dootu ci wa ngelaw sax du ci dugg te yonent bi nee na bàmmeel buñ ci defee laso yërmande yàlla dootu ci wàcc nit ñi xamuñu bàmmeel yi ñuy def ni jël bàmmeel def ci ay fleur jël bàmmeel def ci ay tabax ko ba mu ne kaaj def ci ànd cuuraay di ko ziyaare dimanche bu nekk nga ñëw waaw toog ci bàmmeel bi keroog biñ demee mbuur dañoo suul góor gi rek benn waaye daal di bind muhammadu ci kaw ci kaw armeel bi muhammadu benn paa ne ko lii kenn du ko def ndax au lieu li mu wax sax dëgg la kenn du ko def waaye mu ne lu mu ko layale mooy turu muhammad daa daa foor boo ko defee fii xar yi ak mbaam yi dañuy dugg fii di ko dëggati ma ne ma ne ko waxoo ko li nga ko war a wax de lan moo tax bu nit deewee buñ ko suulee ñu bind ci kaw muhammad dañ naan turu muhammad moom la yàlla bindee nit bopp bi mooy miim bi biir bi ak ginnaaw gi mooy xaa bi toogukaay bi mooy beneen miim gi tànk yi mooy deel yi ñu ne mooy muhammadu yàlla du lakk nit kon su nit deewee buñ ko bindee ci kaw armeelam yàlla du ko lakk laaj laaj bi ñuy laaj foofu mooy lu taxoon kon yonent bi bu suulee nit ba pare du ci bind muhammad lu tax bu du ko ci def xam nga ñun dañoo bëri yërmande dañ naan nangam bi buñ ko defee waa ji dem aljanna man leen dong laa bëgg a xam léegi yow mi bëgg a yóbbu nit ñi àjjana lu tax yonent bi moom ña doon dee mu leen doon suul moom daawul def loolu kon yow yaa gën a xam yonent bi yoonu aljanna wala yonent bi moo la gën a xam yoonu aljanna tey ci sunu diine ci dafa bëri dafa bëri ay mbir yoo xam ne dañ koy def te ki koy def ah soo ko ne foo ko jëlee mu ne sama benn paa sama benn paa moo ma ko jox quoi da ngay gis ku julli ba pare naan lii xoolal ci sijaada bi kat di bind bind bind bind ba doyal naan nii fóon soo ko ne waaw sawaay salaamaaleykum loo doon bind mu ne la allahu laa doon bind wala dama doon dessiné benn biddéew soo ko ne waaw léegi loolu lu muy jëriñ mu ne la non dañ ma ne sama benn paa moo ma ko jox nee na saa yu ma ko jullee naa ko def sa paa boobu ak yonent bi kan moo ëpp bar daraja ko ëpp barke damaa laajte sunu paa yooyu ak yonent bi kan la gémmiñam ëpp barke lan moo tax kon yonent bi ne def leen lii ñu bàyyi naan paa bi nee na
réer
benn waay day jul dani su jullee fajar fa ne inna atayna kal kawsar fasal li rabbika wanhari inna shaniaka huwa al abtar ma ne gulli nag mu ne sama benn maara moom ma ko jox quoi sama benn maara inna atayna kal kawsar fasal li rabbika wanhari inna shaniaka huwa al abtar ma ne léegi lu muy tekki mooy aar naa sama bopp gisoo ni ma ko def aar naa nii aar nii aar nii aar nii aar nii aar nii dara belee ndew naa ma ne ko teewoon nga jël auzu bi kalimatillahi tamma bismillahi allazi la yadurru ma ismi shay'in fil ardi wala fis samai wa huwa samiun alim cheikh benn cheikh bu tudd Wahid Abdou Salam Bali dañ ko indil benn jigéen bu jinne jàpp muy mocc jinne ji xam nga jinne bu jàppee nit sooy mocc nit ki jinne bi day wax ci làmmiñu nit ki ki mu jàpp bi muy mocc ndaw si jinne ji daal di jekki-jekki rek daal di yuuxu ne ko dinaa ko bàyyi waaye su ma ko bàyyee ci yow laay ñëw nga jinne soo koy mocc da lay menacer da lay tiital génn ci sa yoon nekku ci nga ne ko sama yoon a ngi ci kii sama mbokk jullit la mu ne la su ma ko bàyyee damay ñëw ci yow de mu wax loolu sëriñ bi sëriñ bi ne ko sama yoon nekku ci man daal li ma ñor mooy kii nga jàpp di nga ko bàyyi mook sëriñ bi mook sëriñ ba caag rek jinne ji daal di jooy sëriñ bi ne ko looy jooy mu ne damaa xam ne su ma ko bàyyee it yow munumaa ñëw ci yow mu ne ko lu tax mu ne ko bi nga xëyee suba wax nga laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir loolu ku xëy wax ko fukki yoon ñun jinne yi duñ la mënal dara sëriñ bi ne ko sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi moo wax dëgg parce que moo ko joxe moo ne ku xëy suba wax loolu jinne yi duñ la mënal dara abu hurayra radiyallahu anhu wa arda dafa dem marché ba mu dégg kër yaa ngay lakk mu ne sama kër du ci bokk ñu ne ko lan madina ngay lakk kër yaa ngay lakk mu ne giñ naa ci màggaayu yàlla sama kër du ci bokk ñu ne ko lu tax mu ne bi ma xëyee suba wax naa bismillahi alladi laa yadurru maa ismi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiun alim yonent bi nee na loolu ku xëy wax ko trois fois lu bon du la laal te wax naa ko lakk bi daa lakk ba yegg buntu këram fay
allahu akbar
ñun nag bu ñu xëyee suba ndox la ñuy sotti ndox cur bu ñu xëyee suba ndombo yi la ñuy seere da nga gis benn waay boo xam ne fii ba fii fii ba fii ay ndombo la fii ba fii ay ndombo la ndigg li fii tànk yi ana ñaan yi la yonent bi jox su fekkee yonent bi lim la indil mënalu la dara lan moo lay mënal dara yonent bi li mu indi suñu mënalul dara lan ngeen yaakaar ne mbokk yi loolu moo ñuy mënal dara dara du ñu mënal dara dañuy sonal suñu bopp mu ne fekk nañ fekk nañ ay nit yoo xam ne ya ku fuun ñoo ngi bóof ala asnaamin lahum ci ay xërëm yoo xam ne ñoom ñoo ko defar ak seen loxo ba pare bóof ci tamasil mooy tey li ñuy def ñun nga yatt dem ci yattkat bi mu yattal la dara ba pare nga ñëw teg ko ci sa saal loolu xërëm la dañ ñoo tere lépp loo xam ne nataal la muy am ruu dañ ñoo tere muy nekk ci suñu biir kër yi suñu biir néeg yi loolu nañ ko xam lépp lu ñu yatt muy am ruu araamal nañ ko ci yow nga koy dugal ci sa néeg di ko taxawal wala nga koy tëral yonent bi alayhi salaatu wasalaam Seydina Ali invité na ko wala kenn ci saxaaba yi yonent bi ne tëll gis rideau bi am di dessin nit rideau bi am dessin nit yonent bi dëpp ki ko invité woon mën na nekk Ali mu ne ko waa foo jëm mu ne ko dessin boobu moo tax du ma fa dugg moo tax boo amee tissu yu mel noonu da nga koy def njaganaay wala nga def ko darab kenn du ko samp mu taxaw sunu borom subhanahu wa taala mu ne qaalu ñu ne ya Musa ij'al lana aliha kama lahum aliha Musa defaral ñu benn yàlla waay comme gaa yi qaala Musa ne leen innakum yéen qawmun tajhaluun ay nit yu réer ngeen li ngeen di wax nii ku réer rek moo koy def lan ngeen réere anna al ibadata la takunu illa lillah jaamu yàlla rek ko moom kenn du jaamu xërëm kenn du jaamu estati innakum qawmun tajhaluun ay nit ñu réer ngeen ndax soo réeree baaxul réer baaxul waxoon naa leen ko barki dem ñetti raa la réer rëy réew benn baaxu ci saa yoo réeree da ngay rëy soo réeree da ngay réew moo tax réer baaxul qaala Muusa ne leen a gayra allahi abgiikum ilahan ah da ngeen a rep yéen dama leen di wutal beneen yàlla bu dul yàlla yéen léegi-léegi la leen yàlla sëfe ngeen ñëw fi naan da ngeen di jaamu ak xërëm a gayrallahi ndax lu dul yàlla ab xiikum laa leen di utal ilaahan mu nekk yàlla te wa huwa moom yàlla faddalakum ala alaalamin yàlla moo leen defal ngëneel ci kaw mbindeef yi faddalakum yàlla moo leen may ngëneel alal alamin ci seen niti jamono ngeen gën leen yéen yahudi yéen a gën ñëpp seen niti jamono naka la leen yàlla defalee lu mel nii yàlla defalee leen xéewal gu màgg gii tey ngeen ñëw fii naan nañ ñu defalal yàlla wala nañ ñu defalal xërëm ñu toog ci di jaamu gars yi ku jaamutul yàlla looy jaamu ku yàlla doyul dara dootu la doy noo mën a mel noo toll su la yàlla doyulee dara du la doy moo tax da ngay gis kilifa goo xam ne da nga ko wet nga gis ko muy xërëm di dem ci àll bi di sànni ay nen ak di wut ay xar yu ñuul ak topp tefesu géej geeg bàyyi ba guddi muy sangu ci ay garab ak te ko la kilifa la de takk na ndomba tànk bu nekk ah damaa tëb bim ne innakum qawmun tajhaluun mu ne leen inna haulaai mutabarrum ma hum fii xanaa xamu leen ne ñii inna haulaai ñii nit ñi ngeen di gis ñii mutabarrun haalikun luy alku la ma hum fii liñ nekk li ñu nekk alkande la kuy xërëm kuy jaamu xërëm da ngaa alku ak koo mën a nekk nag ak jamono boo ko mën a defee saa yoo bàyyee yàlla topp xërëm rek mutabarrum ma hum fiihi luy alku la dégg nga mu ne xaalikun xaasirun laa yaksibuhum xayr lii ñuy def du leen indil jàmm wala yadfau anhum charran du leen dàqal lor ku fekk ak xërëm nga koy jaamu ah nga bóof ci xërëm bi xërëm bi lu mu la mën a musal xërëm bi du dégg du gis moo tax gis nga Ibrahima moo ci jàngale jàngale bu doy waar Ibrahima ñëw na fekk bëgg a jàngal nit ñi fekk xërëm yëpp taxaw Ibrahima jël jaasi daaneel xërëm yëpp jël jaasi ji wékk ko ci xërëm bu ngand bi bi gaa yi ñëw naan man faala haza bi alihatina lan la leen tont bal faalahu kabirum haza yéen ka lu ngeen di laaj ñu ne yàlla yi lañ daaneel mu ne waa léegi nag ñu ne dañuy seet ku ko def mu ne yéen ngeen fekk ñëpp daanu ponkal mi wékkoo jaasi yi mu kon kay laaj leen ko gis nga xoolal jàngale bi nu mu gaaw nu mu nu mu nu mu nu mu leeree gars yi ne ko yow yaa gën a tey ne xam nga ne kii du gis du wax du buuse mu ne yéen a tof ku mënalul boppam dara kon ngeen koy def yàlla allahu akbar uffin lakum yàlla ngeen dee da ngeen di jaamu loo xam ne mënalul boppam dara loolu rek la doon xaar xamoon na ne loolu la mooy réponse bi xamoon na ne bu leen waxee ne yàlla yi ndaw yi dañoo daanu yàlla ju ngan jaa ngi nii moom la xamoon na ne dinañ tontu ne ko yow yaa gën a tey ne kii du bouger du gis du wax ndeysaan kenn ci saaba yi moom da doon dem ci yàllaam ca digg àll ba la ko defoon mu ne tëll fekk till bi yëkkati tànk bi noonu xaj di def di saw ci yàlla ji mu ne allahu akbar rabbun yabuulu saabaanu bi ra'sihi yàlla joo xam ne ay till ñoo koy saw tey ma deñ ci yàlla jooju de jëm ci yàlla ji nga xam ne moom ah moo sàkk moo bind moo moom wax ni day utiliser xelam xam nga Ibrahima dafa bëggoon gaa yi yëngal seen xel waaye ba mu ko ne yow yaa ko tey xam nga ne moos kii mënul loolu Ibrahima daal di exploiter affaire bi waaye gis nga li ñu naan ma riirandoo foofu gaa yi dañu ne tekk bëgg tuub parce que Ibrahima yëngal na leen am na benn waay ci mbooloo mi mu xam ne bu bu ñu noppee rek nit ñi bu ñu ñibbee ñëppay bàyyi namrud dañuy tuut rek mu ne unsuru alihatakum dimbali leen seen yàlla yi yàlla bu ñuy dimbali wala gaa yi bi ñu ne Isa yàlla la Isa doomu yàlla la yàlla dina seetaan doomam ñu koy rey di ko christifier Macky Sall dina seetaan doomam ñu koy rey am na benn président boo xam ne immeuble immeuble la doomam nekk immeuble bi di lakk rek immeuble tamaro immeuble bi lakk nu président bi def daa dox tànkam ba pale ndax oto yi sax dafay yéex mu ne bàyyi leen ma daw ndax embouteillage dafa am muy daw ak tànkam ba yegg ci immeuble bi ndax bëgg doomam ndeysaan bu mu dee ah léegi nag ñi naan Isa doomu yàlla la kon bu doon doomu yàlla la yàlla dina seetaan ñu koy crucifié di ko rey ban buur waxuma sax buur ban papa fii ñu toog ci jàkka ji mooy nangu ñu indi sa doom ñi di ko daaj nga taxaw di xool tontu leen ma ko ban jigéen moo koy nangu kon xam ngeen ne Isa doomu yàlla Isa jaamu yàlla la du doomu yàlla kon loolu leer na nañ sunu borom ne leen inna haula i ñii mutabarrum ma hum fiihi lu alkula lii ñu nekk wa baatilun caaxaan la ma kaanu yaamaluna lii ñuy def ay caaxaan la mooy jaamu ëkk gi jaamu yëkk wi ci leen Musaa wax ne a gayra allahi abgiikum ilahan da ngeen a bëgg ma utal leen leneen lu dul yàlla te moom yàlla wa huwa faddalakum ala al alamina moo leen gënal ci mbindeef yi na ngeen fàttaliku yéen lu leen yàlla defal wa is anjaynaakum ba mu leen musalee min aali firawna ci waa kër firawna yasuumunakum doon lañ leen togg di teg seen kaw suu al azaabi mbugal mu bon mu ñaaw mu tar mbugal mi lan la yuqattiluuna dañ daan rey abnaakum seen doom yi góor yi wa yastahyuuna nisaakum ñu desal doom yi jigéen yi yéen yéen banu israil li leen yàlla musal ci li leen yàlla dindi ci ay coono kenn mënu koo wàññi banu israil dañoo demoon ba bu ñu bëggee lekk du ñu togg yàlla moo leen di indi lekk aljanna ñu toog lekk ba suur lekk bi demaat ñu daal di toog mu ngi tudd man na wa salwa suñuy dox bu naajee bu naaj bi tàngee yàlla indi leen keppaar benn niir suñu maree yàlla Moussa dóor yat bi montagne ñu toj ndox génn ñu naan amul leen yàlla defaloon bu ñu bëggee bu ñu maree mu jox leen ñu naan bu ñu xiifee mu indi leen lekk ñuy lekk mën naak salwa ba ci yàgg rek li lay wan ne dañoo reew mooy xale yu góor yi reew nekk ci kër gi nekk ci kër gi xamoo yow nu ñuy def ba dem dépasse nu ñu ndogoog nu ñuy xëddee ak nu ñuy reere nga togg ba ci yàgg naa naa kër gi mbaxal rek la ñuy togg wax naa waaye wala dëxin la ñuy togg dëxin waaw mais paa bi dañ wax ak moom quoi dëxin guddi dëxin bëccëg te yow xamoo dëxin nu mu dëxine yow da ngay lekk rek te ngaa lekk te noppi loolu moo dal banu Israël waaw waaw mais mais xam nga kër gi moom king kilibaa rek la ñuy ndekkee mais mënuñu am ak ay café ak ay meew yooyu quoi ak bees doore ah loolu boo ko bëggee da ngay liggéey paa bi king kilibaa la am wala yaa ngi fi tontu ay nit.
ah am na ay nit yu fi nekk de allah king kilibaa lu tax ñuy naan king kilibaa gis nga lu tax duñu lekk mburu ak beurre lu tax duñu lekk fromage lu tax soo ko bëggee da ngay liggéey paa bi lii la am yow dama nga def ni moom banu israil yàlla di leen indi lekk mën naak salwa ñuy lekk ba ci yàgg rek ñu ne lan nasbir ala taamin wahid waaye mënatuñoo yàlla mënatuñoo supporter lii mënatuñ cee sax mën naak salwa guddeeg bëccëg indil ñu leneen waaye yàlla mu ne lu ngeen bëgg ah luñ tontu lan lañ tontu aaya ba lii génne ci suuf.
déedéet balaa ihbitu misran am na aaya bi ci kaw ud'u lanaa rabbaka laa ilaha illallah lan nasbir ala taamin wahid ud'una rabbaka ma ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها و وبصلها يلا mënatu ñoo xam nga luñ bëgg ngeen ñu ay carotte wala pomme de terre soble ak naajo ak supame loolu lañ bëgg loolu ko bëgg nooy def ngay bàyyi yàlla ne leen ihbitu misran fa inna lakum ma saaltum ba ñu demee commencé mbay neexul de yàlla mu ne wa duribat alayhimu zilla wal maskana wa baa'u bi ghadabin min allah moo tax souvent lu ëpp baykat bu amul matériel pauvre lay nekk baykat bu amul matériel bu mu bayee pauvre lay nekk xoolal kuy lekk yow yow sa yoon nekku ci saa yooyu di nga fekk sa mburu tege sa sa kinkilibaa tege saa yoo ñëw di nga fekk mburu kinkili baa tege te nga sant yàlla saa yoo ñëw di nga fekk boolu dëxin bi guddi di nga fekk kopp ci rek kopp mais wala kopp fonde doo sant yàlla waaye naan waaye kër gi fonde rek la ñuy reeree fonde rek te xamoo fu fonde fonde nga naan bëgguma fonde biftek laa bëgg ba ñu éliminer sa kaasu fonde nga ñëw naan waaw anak fonde bi ñu ne ah amoon naa benn xale bu naan du ma lekk mbaxal ndeysaan du ma lekk mbaxal boobu papam dafa am lekk mbaxal du ma lekk mbaxal buñ toggee mbaxal papa ji da koy jox xaalis mu dem reer yi ñëwaat ñu naan ko ci yow kii waaye mu jige mbaxal boobu sax bëgg na cee jot mu tëgg ko tëj parce que paa bi dafa génn àdduna kër gi dootuñu reer sax guddi ñëpp laa wax dootuñu reer guddi parce que amatuñ nit dafa gaaw a beew yàlla loolu la wax kalla innal insana la yattaqa kañ an raahu istaghna nit su amee tuuti rek commencé bew ba ci ñun ñii ku ci am léegi rek da ngay changé numéro changé fi nga dëkkoon toxu dem foo xam ne kenn du la gis ku fa bëgg a dem sax taxi ngay loué 3000 ou foofu man ñun mënuñu faa dem waaw léegi deux mois yi nekk benn yoon ngay ñëw ci koñ bi te guddi ngay ñëw kenn dootu la gisati ku la woo dafa am benn waay ndeysaan bi ko Ablaye Wade dàqee député la woon Ablaye Wade dàq ko mu ngi dëkk parcelle Ablaye Wade dàq ko ci gouvernement bi dàq ko assemblée ku mu dajee rek jox la numéro bi Macky Sall yéeg def ko ministre boo ko wooyee rek mu ne la munoo maa jot man la diw munoo maa jot ma ne ko kenn dootu la jot mais biñ ko dàqee ku ko woo jot ko mbaa yéen a ngi may ñaanal mbaa yéen a ngi may jàppale ñu ne waaw waaye bi ñu ko defee ministre ku ko woo mu ne man la diw mënoo maa jot ba léegi nii mënooñ koo jot gis nga doomu aadama dafa gaaw a beew su amee rek changé ay xarit changé mbubu changé changé changé changé ba jàkka ji sax dootu fa demati non man gëj naa jàkka ja ah gëj naa jàkka ji de moo tax borom alal yu bëri doo leen gis jàkk wala ñu takk ndomba tànk yi doo ci gis kenn jàkk député buy dem fajar jàkk sénateur ministre président bëriwul de kan kan la fi benn ministre dëkk seen koñ di ngeen ko gis jàkk ah mu ngi ñëw jàkk gis nga gis nga gis nga waaw ba ci kilifa diine yi sax duñ dem jàkk te ñoom ñooy kilifa diine de nga gis kilifa diine boo xam ne du dem jàkk te diine moo taxoon ñu xam ko ñëpp dana ñëw jàkk ji moom kenn du ko gis te diine taxoon ñu xam ko lu tax dañuy daw nit ñi dañuy daw nit ñi da yaakaar léegi boo demee jàkk di nga fa dajeek benn waaye ne la sëñ bi man de amul lu ma ndogoo ah boo demee jàkk bi nga gis benn waaye ne la monsieur le ministre temps yi dëkk bi dafa métti de doo ma wutal liggéey wala nangam nangam nga commencé di daw nit ñi waaye ndomba tànk bi di nga ko tekki léegi boo ko tekkee nag nga commencé di dellu siwaat ci nit ñi nag gàcce lay doon il faut ñu xam suñu bopp ñu xam suñu diine suñu borom subhanahu wa taala mu ne yéen banu israil yàlla lim leen defal ëpp na ba nga xam ne yéen kenn waru leen fekk ngeen di bokkaale yàlla rëccal na leen ci firawna ba muy rey seeni doom di bàyyi doom yu jigéen yi yuqattiluuna abnaakum wa yastahyuuna nisaakum muy rey doomi góor yi di bàyyi doomi jigéen yi yàlla mu ne wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim lool rek fi zalikum nekkoon na ci loolu balaa un natt boo xam ne musiba boo xam ne min rabbikum ci seen baay borom la bàyyeekoon waaye azim lu rëy la woon balaa un ixtibaar wa imtihaanun qoosin sadid natt la boo xam ne foo ko natt woon wees na ko xam nga nit ëmb jigéen ëmb juróom-ñeenti weer am doom léegi ay garde ñëw yëkkati tànk liir bi nii ci kaw téye ko nii jël jaasi dagg bopp bi tegal la ko noonu sa kanam nii ngay gis loolu lan moo ko gën a métti ci àdduna noonu la Firawna daan reye liir yi ku amoon doom day ñëw jàpp doom ji nii jàpp ci tànk yi xale bi di wajj wajj di caddi caddi mu jël jaasi dagg bopp bi tegal la dem yoonam nga jël suuli te ñi ma woo wax soo waxee yow baay ji wala yaay ji ñu rey leen ñu rey la ñu tegal la ko ci loolu nag yàlla yónni Moussa Moussa ñëw libéré leen est-ce que kon jaadu woon na banu Israël gis ñuy jaamu xërëm ñu naan Moussa defal na yàlla comme ñii mbokk yi loolu moo nekkoon darsa tey ñoo ngi jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa